mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ñu ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxu di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak baneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Issa Gueye Issa Gueye nekk secrétaire national chargé de l'administration du SUTSAS waaye tamit nekk secrétaire administratif adjoint bu kuréel bi di ànd gësëm Issa Gueye ñu ngi lay wax dalal ak jaam ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu ñu ngi lay remercier vraiment ci nangu bi nga xamante ne nangu nga ko wuyusu ci suñu invitation bi le waaw asalaamaaleykum euh, les auditeurs de Rewmi FM ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, kenn ku nekk ci turam ak santam mais aussi di nuyu euh, soxna si Fatou Baba Fall te faral di ko naan la grande journaliste di nuyu ñëpp. di rafetlu aussi encore une fois invitation bi nga xam ne invité nañu ko. Mhm. Mhm. Mhm. Euh, mu mel ni boobu ba léegi lii di secteur de la santé dañ ci nemmeeku woon ab tekk tekkaaral mais bu ñu deful donc ci fan yi ñu jëm euh, fas yéene ngeen euh, yëngu di yëngal comme ab ay syndicaliste ngeen. tey sax euh, euh, ci ay fan yu génn rek jot ngeen fi def euh, conférence de presse amendement c'est pour tirer la sonnette d'alarme waaye tamit tirer la sonnette d'alarme ñu tàmbalee rek ci li nga xamante ne moom moo bokk ci seen plan de revendication yi bokk na ci li ngeen di xeex lu ñuy duppee octroi ou indemnité de spécialisation Issa mu mel ni point boobu yàgg ngeen ko xeex mais ba léegi mu mel ni amu leen ci gain de cause lan mooy expliquer le fait que euh, muy ralentir boobu ba léegi. waaw merci beaucoup merci beaucoup Fatou. en fait di wax ne euh, comme ni ñu ko xamee noonu tekk tekkaaral tekkiwul euh, bañ a def dara mm-hmm. et comme ni ñu ko xamee ñun euh, ànd gësëm xeex dañ ko def moyen mais du finalité du fin encore une fois xeexuñu pour xeex mais dañuy xeex pour am dara. Mm-hmm. waaye xeex dafa am lu koy jiitu mooy waxtaan. Mm-hmm. donc boo waxtaanee am ay la yéwén waaye boo amul ku ne xam na syndicaliste seen arme euh, sànni wuñ ko dañ ko suul seen wet. Mm-hmm. bu ñu xeexee amuñu rek dañuy bu ñu waxtaanee amuñu rek dañuy daal di def li nga xam ne mooy suñu mënin maanaam tàmbalee ko ci li gën a tuuti ba li gën a dëgër mooy euh, def grève. Eh, ay la yéwén nag eh, suñu nekkee ci kanam un état bu nga xam ne dafa irresponsable je le dis ñun en toute responsabilité dañuy daal di jël nag suñuy matuwaay toog jàmmaarloo ak état boobu mhm. pourquoi état boobu dafa irresponsable ak wala boog eh, ay matuwaayam ak ay kiyam li mu war a def defu ko mooy ku ne xam ne ànd gësam ñëwoon na fi bi ñu déposé suñu préavis de grève bi mhm. jiitu woon nekkoon le 12 mars deux mille vingt mhm. ñu déposé ko toog di xaar ñu woo waxtaan ay lay yéwén 12 avril toog di xaar euh, woowu ñu waxtaan ba le 21 ñu woo ñu waxtaan ñu tàmbali waxtaan wi. Mhm. am na yu bëri ci wadd nag ay la yéwén il faut le il faut le dire. Mhm. am na yu bëri yu nga xam ne wadd na. malgré que li koy um, firndeel defaguñ ko woon muy protocole d'accord mhm. lu mel ne technicien supérieur yi ñu ngi leen di former yu mel ne indemnité d'itinérance bi nee nañu dinañ ko yokk trente mille ci mois de janvier mais ba léegi gisaguñu ko mhm. buñ demee janvier deux mille vingt trois aussi nañ ko def cinquante mille ak yeneen ak yeneen mën naa ci bañ a bañ bañ a sori mhm. alors bi ñu continuer ci loolu nag ñu continuer ci négociation yi def ay négociation sectorielle maanaam ministère yi nga xam ne ñoom ñëpp la intéressé di ñu waxtaan ñuy waxtaan ak ñoom buñ ci jógee nag ñu waroon dem plénière ak les ministres en tant tel parce que ñële c'est des techniciens mooy sectoriels yi ay techniciens lañ dañuy waxtaan ak ñun nañu ñu lii kat gouvernement bi mën na ko waaye la koy firndeel wala la koy def mooy nag ñu dem plénière ak les ministres concernés muy les ministres des finance de la santé euh, du travail euh, de l'emploi de la fonction publique et consort et du budget aussi Euh, ñu toog ak ñoom nag ñoom ñu ne lii kat mën nañ ko dañ koy signé. Mm-hmm. mais toog boobu plénière boobu moo jafe. Mm-hmm. biñ leen toppee waxtaan ceeg ñoom guddeeg bëccëg suba ak ngoon ñu lank loolu laa koy tuddee ndax di nañ ko def dinañ ko def ba le 27 décembre passé ñu jàpp bis boobu. Euh, ay la defuñu ko ñuy toogaat di déglu. le 9 janvier ministère de la santé nañu ñëw leen ñu signer protocole ñu ne ko ah du yow la ñu war a signer protocole. Mhm. parce que protocole bi euh, euh, nu mu koy waxeeti préavis de grève bi ak plateforme bi ci table gouvernement bi lañ ko tegoon gouvernement bi moo ñu a toog. moo ñu war a woo waxtaan pour ñu signer protocole alors que malgré nee dina xoolaat système indemnitaire loolu dinañ ci dikkaat bu baax a baax a baax mhm. ñu ne nag comme la demee woo leen xaar leen taaxirlu leen parce que on est des républicains ah tout d'abord dans un système de santé et de l'action sociale ku ne action sociale nag di nga xalaat nit ñeeg yu mel noonu moo taxoon mu amoon <laughs> luñ jàppee tekkaaral mais du woon ndax ñi doon waxtaan ci suuf mhm. dañ koy Euh, deal la woon ci suuf ak yu mel noonu mais ñu ngi doon waxtaan ak sectoriel yi daje nañoo ministre de la santé ministre de l'habitat yu mel noonu ba namora am na ay avancement yu bëree bëree bari ak euh, yeneen ak yeneen ak yeneen waaye mhm. protocole bi moo tardé toujours pour ñu signer ko te mhm. protocole boobu nag moo war a tënk gouvernement pour mu def lii tey jii bu ko neexee ne du ma ko def ndax signé wu ko fenn bindu ko fenn mhm. donc loolu moo waral nag bi ñu xoolee loolu yëpp ñu ne arrête yëf yi nag dafa war a fu muy yem fan lay yem mooy tey jii di àllarba ñu woo suñuy naataango woole journaliste xamal leen ne kat ñun ñoo déposé woon préavis de grève ñu dem ba mu yàgg état bi war ñoo woo pour ñu signer euh, protocole d'accord ba léegi mënu koo signer ñun nag xaar nañ ba xaar fa mu yem nag léegi nag dañuy su nuy arme mhm. pour dem xeex ji ak état boobu pour li ñu bëgg ñu foqati ko ndax ñoo ko moom mhm. comme li may wax noonu rek ñu dem gësam góor gi loolu mu war a signé mu signé ko te bu ko signé du ñu yem ci loolu na ko génne ñu gis ko teg ko ci kaw taabal bi loolu moo waral tey ji ñu xëyoon defaraat beneen préavis de grève grève ndax comme ni ñuy defee préavis de grève normalement a an la woon mais ñun six mois la ko déposé woon six durée six mois la ñu la ñu defoon te dañ ko bindoon noir et bi six jeexee aussi ñu déposé waat tey jii beneen préavis de grève bu nga xam ne dina am benn temps bu nga xam ne dañ koy may nguur gi mais comme ña nga woon ci benn préavis de grève maye moom amatul incha allah dinaa ci dikk ci kanam tàmbali nañ dinañ tàmbali à partir d'aujourd'hui benn plan d'action nga xam dañ ko tënk ci weer weer woowu incha allah duñ ci grève duñ ci def dara mais dina am yenn yuñ def dinaa ko lim ci kanam. Mhm. u dee état bi deful dara nag on vous tient on vous dit que l' état est responsable de lu mën a xew ëllëg. Mhm. ku feebar te faju nañu jàppee ne état mooy responsable mais ñun alerté nañ à temps wax nañ la ñu a wax à temps. Mhm. def nañ conférence de presse tey wax nañ lan mooy jafe-jafe yi nekk. ci système bi encore une fois euh, li ñu waroon a yëgal nit ñi yëgal nañ leen ko ñi ngi déglu état bi euh, ba xam dina ci jël ay matuwaay am déet su ko jëlee xayrun su ko jëlul aussi ñu dem ci lañ ñu xamee muy syndicaliste moom xeex ba am li nga bëgg rek incha allah euh, waaw syndicaliste xeex ba am li nga bëgg bokk na tamit ci seen point de revendication yi nga xamante ne certainement ça vous tient à cœur wax nga ko ñëwoon nga fi ci mois de mars mais ñu bëgg xam rek ndax wax ba léegi am ngeen ci satisfaction mu di ñu defal leen allongement de l'âge de la retraite à 65 ans pour yeneen catégorie d'agents du ministère de la santé ak action sociale euh, léegi mu def un an wala mu ëpp ko sax mais rek biñ fi mujjee ñëw Issa am nga loo xamante ne waxoon nga ko tey jii euh, fu ngeen toll ci wàllu woowu waaw loolu moom mën nañu wax ne fa mu tolloon la toll ba léegi parce que nguur gi chef de euh, gouvernement bi di président de la république moo ci war a jël ndogal te loolu la ñu waxoon que nun koy waxeeti euh, mënuñu koo defal ndax yeneen ak yeneen xale mag ñi dañoo war a xajal gone yeeg yu mel noonu du ma ci dikkaat tontu woon naa ko ci loolu mhm. tontu yu bari aussi leeral na ko ba nga xam ne loolu on a plus besoin de ci di ci di ci di ci revenir parce que mhm. mënoo comprendre ay année deux mille quatre personnes ñoo doon liggéey pour fay benn retraité tey jii benn nit ak genn wàll buñ ko mënee waxee la genn wàll nit amul mais un virgule cinq une virgule une personne et demi mooy liggéey d'ailleurs sax ni ngi naan une personne et quart ñooy liggéey tey jii pour fay benn travailleur parce que lu ko waral fonction publique recruté gul ñi ngi sant nag daaw jii rek recruté nañ quelques mille cinq cent personnes bu ñu ko nee noonu dina baax mais fonction publique recruté tul te nit ñi ñi ngi dem retraite mhm. benn bi mi ngi noonu beneen bi aussi ñun ñi xam ne euh, mhm. dem njàng njàng mu yàgg bu fonction publique recruté wu da dem ba am lu fanweer at juróom te boo nekk euh, fonctionnaire décisionnaire ngay nekk bu dee les les les les paramédicaux dañuy jàng am seen i lijaasa c'est vrai njàng ma yàggul nee ñetti at la mais da ngay am lijaasa doo liggéey ñu lay defloo ay contrat jeex ba mukk mhm. am na ñu nga xam ne tey jii gis naa ngi woon commission de redéploiement mais am na ñu nga xam ne def nañ plus nga tey jii bu dee vingt ans nga am jàng euh, ñetti at muy vingt trois ans nga liggéey nga liggéey contrat quinze ans am nga trente huit ans romb nga âge ba nga xam ne moom nga war a duggee fonction publique alors boo duggee décisionnaire nga nekk doo mën a cotiser pour IPRES mhm. yaa ngi gis problème boobu tey jii su ko defee on demande à l'État que on nous sommes exigeants par rapport à à la nouvelle plateforme revendicative mhm. dañuy wax état bi lii ñu ko tegal duñu ci dellu ginnaaw tey duñu ci dellu ginnaaw ëllëg mhm. retraite à soixante cinq ans bii ni mu ko joxee ñëpp na ko joxee la santé en mhm. intégralité maanaam na ko jox ñëpp euh, lan nga jàpp ne Issa Gueye mu mel ni dafa xaw jur lu ñu naan deux poids deux mesures lan mooy expliquer loolu parce que combat bi yàgg ngeen ko mëne certainement am nañu ci am gain de cause mais yéen ba ba fu ñuy waxee nii mu mel dafa xaw a dëgër ci seen côté pour ngeen am euh, retraite a soixante cinq ans. waaw du ma yem ci retraite a soixante cinq ans bi rek parce que deux poids deux mesures yooyu. Mhm. c'est vrai am ci retraite à soixante cinq ans ni ma ko waxee sama naataango médecin parce que comme li wax SUTSA c'est un syndicat professeur ki gën a ci wàllu wér yaram ba ci gën a tuuti ba ki gën a suufee ñoom ñëpp tey jii mën nañ am carte membre au niveau du SUTSA am nañu ci am carte de membre kon bu sant yàlla bu baax a baax mais médecin bi nam ko mérito noonu la ko keneen mérito mhm. te du loolu rek am na aussi le système indemnitaire en son temps euh, ñun syndicat bi ñu nekk di SUTSAS wala ànd gësëm ñun ñoo taxawoon ne dañoo gis ay faay ci euh, la la prise en charge de de la fonction publique maanaam fay bi nga xam ne fonction publique mi ngi koy fay nga xam ne mi ngi koy jox euh, travailleurs yi nekk biir fonction publique. Mhm. am na ci ñu nga xam ne da ngay yem ak nit ki diplôme mu mën laa fay ñaari yoon. ba pare mhm. dese lu ëpp la nga yor. loolu c'est des problèmes te lan moo ko indemnité yu nga xam ne ñu ngi koy jël di ko jox bi ñu posé le débat sur la table du président Macky Sall mu ne c'est bel et bien logique léegi nañu dem ay waxtaan. def lël fële ca Thiès ñu waxtaanee ko ba gis ne kat yëf yi jaaduwul ñu ne lan mooy conclusion yi mooy nañu jël ñi nekk ci suuf maanaam ñi gën a tuuti lu ñuy fayeeku yéegal leen ba ñuy yem ak seen morom yi ci kaw mhm. ndax du dëgg du yoon ka am ba pare ñu koy wàcc naan da ngay tolloo ki ci suuf mhm. mais ki ci suuf la ñuy yëkkati ba mu tolloo ki ci kaw mhm. conclusion yi am na depuis 2015 mi ngi ci taabalu Macky Sall mais li ñu gis mooy ñun dugal nañ ko suñu plateforme revendicative mais mu dem jox ko ñeneen ñoom ñëpp yelloo nañu ko encore une fois loolu la ñuy wax mhm. ñoom ñëpp yelloo nañu ko dañ leen ko war a jox mais aussi ñeneen ñi ko yelloo aussi nañ leen ci jox mhm. nañ leen ko jox dafa war mhm. tey jii exemple travailleurs sociaux yi rek les conseils en travail sociaux dañuy dem nekkoon ay jàngalekat jóge fa ñëw ci santé bi def concours jàngaat yeneen ñaari at seen salaire seen moti kii indemnité yi ñu amoon te jàngale ma ñun nangu ko dagg ko ba mu set wicc ba nga xam ne tey jii dina am différentiel salaire différentiel bi nga xam ne dina ëpp cent cinquante mille ñii deux cent mille lan moo waral lool nit day jàng pour dellu ginnaaw mhm. jàng ba pare mhm. mhm. leen seen moroom ya nekk amoon ñu bàyyee leen ko mais tamit ñu am ay indemnité ba nga xam ne ñi ñuy yemal diplôme dinañ tolloo salaire parce que nag tubaab bi moo ne à ah, travail salaire égal loolu bokk na ci li tax ñuy kii toppandoo wuñu kenn ndax booba lañ ko tàmbali woon di xeex mhm. xaj na wax nga ko léegi mi ngi suñu plateforme mais amul woon euh, solution am na suivi mais amul solution amuñu benn akki ci loolu ay promesse ak lañ ci amoon loolu sax ba waral nañu ne nañ toogaat tey jii nag comme promesse promesse promesse promesse dinañ ko régler dinañ ko régler tey jii nag ñu ne arrête dinañ ko régler jeex na léegi régler la ñuy nekk. Mm. Euh, Issa balaa ñuy xuus si seen yeneen point de revendication yi wax nga ko promesse promesse promesse mais xam naa ne promesse yi aussi duñu tëb tëb rek di ko def est-ce que tamit autour de la table bu ngeen di négocier eh, yéen yéenay yéenay yéenay lâcher du lest parce que promesse yi tamit à la longue bu yàggee day xam lu muy euros. <laughs> ah oui lâcher du lest c'est vrai que su ko jaree léeg-léeg ñu def ko. Mhm. mais point yi nga xam ne moom lañ tudd. dañ ko waxtaanee d'abord. ak des euh, des neutres des personnes neutres ñu nga xam ne c'est des techniciens seen yoon nekkul ci kii li la am kaa am dañ ko waxtaanee ba ne daal li jaadu mooy ñu jëlee ñi ci suuf yóbbu leen ba ca kaw foofu amul lâcher du lest kenn bàyyiwul dara foofu te duñu mës a bàyyi dara. lan la kay. toog nañu ak le ministère de la fonction publique mu invité tous les autres ministères. ñu toog ñu nuyoo techniciens yi toog ñu ne kat seen problème yi ku nekk imputé la benn problème maanaam ministère des finance ñu imputé ko les questions des indemnités mhm. ministère de la santé ñu imputé ko les questions de la santé l'habitat ñu imputé ko les question de l'habitat ku ci nekk toog a def mooy lan namora bi ñu ko posé woon réglé na problème ba président génn décret ñu cent quatre hectares euh, le ministre de l'habitat qu'on remercie au passage créer la commission qui la dis qui doit assurer maanaam commission bi nga xam ne moo war a séddale kër yooyu ba ñuy souscrire woon ci namora ñëpp jot seen wàll def na ko mm. mais leneen li aussi jox nañu ay nee nañ dinañu jox ay parcelles yi nga xam ne keneen ku nga xam ne amagul woon kër ci logement sociaux yi mel noonu di nga ca mën a bokk dinga nga ca mën am mm-hmm. kon moom def na la mu war a def mhm. mais nag ba léegi bindaguñ ko ci protocole malgré que commission bi signé nañ ko bind ko donc ça fait foi mhm. mais lépp rek dañ ko war a bind ci protocole ñu gis ko mu leer nañ mhm. kon bàyyiwuñu lâché wuñ di lest mais ñañu doon di wax ñoo gëmul seeni wax te jarul ñu ñuy am foi ci ñoom te amatuñu ko yàq nañ ko. Mhm. Euh, bokk na ci li ngeen di wax di sàkku octroi bu indemnité de responsabilité ak tamit relevement à cinquante pour cent de l' indemnité d'itinéraire ak yeneen ak yeneen tey jii mu mel ni da ngeen di poser ay ay ay conditions cent mille cinquante mille ndax mais jàpp ngeen ne guddi ñu toll ak fi négociation yi état bi mun na débourser somme yu ni mel ne pour arrondir les su ma la waxee lan mooy indemnité d'itinérance rek. di nga d'accord ne waroon nañ koo yóbbu lu ëpp. ñu dem ci explication voilà parce que indemnité d'itinérance. li ko indi c'est au temps des grandes endémies. boo naan di defi stratégie avancée maanaam am na nit ñu nga xam ne soree nañu ak barabu liggéeyukaay bi ba hmm. mënuñoo ñëw. su ko defee man mi nekk infirmier wala man mi nekk ci grandes endémies man maay déplacé wu dem ba ci moom faj ko. léeg-léeg dama fay fanaan léeg-léeg ma def fa ñaari fan léeg-léeg ma génn lu ëpp juróomi yoon ci bis bi. Mhm. ci ci weer wi. Mhm. dem ay quinze kilomètres dem plus de trente kilomètres fekk ji malade yi foofu faj leen fekk ji xale yi foofu ñàkk leen ñu ne ñooñu fi ñu toll nii indemnité boobu quinze mille francs la. mais regarde-moi ba xam ministère de la santé wala yeneen compartiment de l'État du Sénégal kenn dina ci génn dem fanaan àll te fayuñ la lu mu boni boni quarante mille. wala mhm. ñoom weer wi yëpp lañ leen di dajaleel moo xam nga génn fukki génn moo xam nga génn juróomi génn moo xam nga génn benn yoon ñu dajale loolu yëpp jox la quinze mille. Mhm. ay la yëwén kooku bu laajoon deux cent mille ndax jaaduwul bu ñu laajoon cinq cent mille ndax jaaduwul. mooy dëgg. Mhm. ñun nag on n'a pas été trop gourmand maanaam xëruñu bëggeewuñ trop ci la ñuy laaj. Mhm. dañuy xool toujours mën-mënu état te xam nañ ne mën na lu ko raw ndax. kuy xëy jox génn benn indemnité quatre cent mille ne ko yow yokkal naa la ko sa salaire génn deux cent cinquante mille ne ko yokkal naa la ko sa salaire te ña xam ne ñoom nga tollool euh, nu mu koy waxee diplôme amuñ loolu sax ca salaire kon xalaat nañ bu baax a baax bi ñuy laaj cinquante mille leneen li indemnité de risques ku xam indemnité risque santé. Mhm. tey jii barki démb euh, Covid bi ñu nekk wane na ko ñu ngi ñaan au passage yàlla jeexal ko fi yàlla na jeex a jàmm. Mhm. mais wane na ko ñaata personnel de santé ñoo faatu ci ci ci ci ci ci mbas mi. Mhm. ñaata docteur ñoo ci loru. kenn xamul nu mu toll ñaata njabootu docteur ñoo ci loru parce que seen borom kër wala seen waajur moo dem jëli jàngoro bi hôpital ba muy faj maladie yóbbu ko ci kër ga jox ko ay njabootam. kenn xamul nuñ toll. indemnité de risque boobu ñu ne nañ ñu yokkal mi ngi woon cinquante mille ñu nañ ko yóbbu cent mille mhm. loolu la cinquante mille lañ wax nañ ko ci teg muy cent mille mhm. ay la yéwén loolu aussi yaakaar naa ne du lu xër la ñu laaj foofu te risque boobu leneen li tamit li ñu ci wax te mooy dëgg mooy nañ ñu ko defal suñu bulletin de salaire ba nga xam ne euh, suñu dem retraite ñu mën ko ñu mën koo yóbbaale. Mm-hmm. mais loolu amul risque santé yaakaar naa bés boo amee soixante ans ba dem retraite soixante cinq ans ndax jàpp nañ ne balaa ñuy génn fi nañ am mm-hmm. ci la feebar yu bëri mm-hmm. ah, di la. ñëw yu mel noonu fekk sa yaram amatul doole sa immunité wàññeeku feebar yooyu yëpp wàññeeku. mais nag risque boobu nag dañ ko waroon yóbbaale ndax a luñ la luñ la luñ di moment que amatoo imputation budgétaire amatoo leneen loo mën a fajoo. loolu moo waral ñu laaj li beneen bi indemnité de représentation médicale pour les mhm. paramédicaux mhm. bërki démb bi ñu nekkee ci digg ànd gësam la état jël deux cent mille francs jox ko les médecins on applaudit encore une fois mais ku jël deux cent mille jox ko médecins nga ne indemnité de euh, responsabilité médicale la mais indemnité de responsabilité médicale médecin waru koo jël ñiy dimbali médecins yi kay ko war a jël muy les paramédicaux mhm. ñooñu nag amuñu benn indemnité de responsabilité maanaam docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, këru fajukaay yi gën a wala nga nekk sage femme wala nga nekk major ci hôpital yi nga xam ne centre de santé yi nga xam ne ñu ngi dakaar ak yeneen dëkk yu xaw a mag yi mais ñooñu amuñu benn indemnité de responsabilité te dañuy yendu ci hôpital ba guddeeg bëccëg suba ngoon donné di leen bëgg a sonal te amuñu mm-hmm. Mm-hmm. aucune responsabilité mm-hmm. loolu tax ñu ne ñooñu dañ leen war a jox responsabilité barki démb encore une fois en plus de ces deux cent mille on a remis à d'autres un de en waa ah. soins infirmiers obstétricaux ñoom c'est des spécialistes te amuñ benn indemnité de spécialité est-ce que loolu jaar na loolu jaarul yoon donc lépp lu ñuy laaj fii lu ñu war a laaj la mais aussi on demande pas à ce que lu ñu jox nit ñu jox ñu ko parce que nag ñëpp yemuñu bu ñëpp yemoon am ñu gedd ceinture mhm. li ñu war def nag mooy verticaliser ko moo tax laa boo xoolee indemnité de responsabilité bi euh, paramédical nous demandons au moins cent cinquante mille mhm. nañ deux cent mille ci topp am cent cinquante mille au moins ñi ci toppaat am cent mille mhm. loolu ay proposition yu ne bu ñu toogee bi te def nañ ko ba pare dinañ ko defaat ah. euh, mbokk audit auditeurs yi xam ngeen ne ab euh, syndicaliste bu mag laay dalal fii tey fu ne nii moom xam naa ne loo ko laaj rek dina am leneen lum ci lum ci yokk Issa dañuy des ba léegi ci seen euh, point de revendication yi ah yéen a ngi sàkk aussi ñu réviser arrêté bi nga xamante ne moom moo soxal répartition ressources bu comité de développement sanitaire yi ak relèvement wam daal di ko yóbbu ci quarante cinq pour cent xam naa ne nag pour ma tekki ko ci olof dina xaw a compliqué mais comme ça domaine la Euh, euh, di nga ci mën a gën a indi ay gindi ngir auditeurs yi ñuy déglu. Euh, incha allah dinaa ci leeral bu baax a baax. ndax que boobu dañuy wax ne point yi yëpp mais boobu dafa bokk ci ñu gën a ñor. Mm-hmm. ndax day lu sensible. ndax day arnaque. c'est-à-dire. la. Mm-hmm. lu tax ma ne arnaque la. Euh, tey jii état du Sénégal dafa jël ay nit leen fay chaque mois. Mm-hmm. mais mu jël ay nit ñeneen leen ka leen ngeen def bénévolat. pour liggéeyal santé. te ñooñu ñu exiger leen résultat yi nga xam ne ñoom lañ exiger ñee. muy les agences santé communautaire. bu njëkk biñ koy créé. c'était en mille neuf cent quatre soixante euh, quatre-vingt-seize. Mm-hmm. dañ ne woon non mille neuf cent dañ ne woon comme jamono ji fii la toll yéen ñi dëkk ci communauté bi dañ leen di jël ngeen liggéeyal communauté bi ci wàllu wér-gu-yaram ñu former leen su ko defee euh, communauté bi bàyyal leen ay tool boobu looloo xewoon di leen sàmmal seen jur gi wala ñuy cotiser cent franc cent franc bu nawet wàccee ñu cotiser dugub gerteeg yu mel noonu jox leen ngeen dundee seen kër te ngeen nekkal ñu ci wàllu wér-gu-yaram bi mais jamono dafa dox dafa jamono dafa soppeek bu baax a baax ba mu soppeekoo nit ñooñu am ay soxla guddeeg bëccëg subaa ngoon waaye tamit ña leen doon bayal nangatuñ leen bayal kon war nañoo fexe lu mu boni boni ñu fexe ñooñu di am salaire te kan mooy responsable numéro un c'est l'état du Sénégal mu jóge ci loolu créer ay comité de santé comité de santé doxul ñu ne dañ koy étudier pour changer ñu étudier indil ñu CDS la nga xam ne moo pire comité de santé moo yées comité de santé CDS lan la mooy loolu nga wax dañ ne daal nañu jaay garab ñu subventionné encore une fois nga xam ne bénéfice bañ ca war a am warul weesu ñaar fukk ak juróom warul weesu ñaar fukk ak juróom maanaam hôpital bi bu jëndee fukk ak juróom bu jëndee ñaar fukk ñaar fukk juróom la war a jaaye waru ko weesu kon tey jii juróomi dërëm yooyu ci ñaar fukk bu nekk ndax mën nañ koo dajale ba mat salaire dara lan lañ ciy def ñu ne juróomi dërëm yooyu ñu ca teg bu weer dee dañ koy calculer juróom juróom juróom yooyu ba mu mat ñu génn ci maanaam juróom benn fukki ak juróom def ko muy li ñu war a jëndee ji garab mhm. bénéfice laay wax de mu des ñaata fanweer ak juróom ñu ne fanweer ak juróom dañuy jël ñaar fukki yeeg juróom séddale ko ñi nga xam ne ñoo doon liggéey bu ñu dee téeméeri nit ñoom lañ leen di séddale bu dee fanweeri nit ñoom lañ leen di séddale nuñ mën a toll loolu lañ leen di séddale ay yoon da ngay gis ñu nga xam ne bu ñu séddoo ba pare ay mille francs la am ay trois mille la ñuy am mhm. ci magum jëm mu bàyyi léppam xëy subaa ngoon gu guddeeg bëccëg te nga am ay exigence ci kawam kookee ndax xalaat nañu ne bu demee day xooli njabootam ndax xalaat nañu ne bu demee looloo tax ma ne la c'est une arnaque loolu waratu fee am te bureau international du travail moom la ñuy interpeller ci loolu que am na fi état du Sénégal mi ngi fi lënkaloog les CDS yu nga xam ne moo ko créé di arnaquer le travailleurs du système de santé muy les ASC mm-hmm. loolee nag ñu ne à défaut ñu éliminer clé de répartition boobu à défaut ñu éliminer les CDS nañu xool ñooñu nuñ leen yokkalee au moins ndax ñu mën caa am dara maanaam bénéfice boobu ñuy wax téeméer bu nekk ñu jël ñeent fukk ak juróomi jox ko ñooñu nga xam ne ñooy agent de santé communautaire yi waaye ticket ya tamit ñu jël ci genn wàll gi buñ jaayee ticket ñu jël genn wàll gi jox leen ko mu dem ci seen mu dem ci seen salaire. Mhm. lu mu boni dina mat dara mooy ne la fi la fi la la fi nekkoon. Mm. te leneen li aussi mooy li tax ma ne la ñu jël euh, CDS si remplacé ko de santé yi te CDS yi gën a bon comité de santé yi mooy lañ doon am ñoom bañ nekkee ci comité de santé yi ku ci doon am mille francs tey jii boo séddoo téeméer ngay am loolu moo fi nekk. Mm-hmm. te kenn nekk lu may suñuy mbokk suñuy rakk suñuy mag suñuy doom suñuy nijaay ñiy liggéey ci wàllu wér te nekk ay. volontaire nekk ay communautaire ñoo nekk di fayeek lool te li gën a bon nag moo waxaat la ko mooy am na ci seen biir ñu nga xam ne ay médecin lañu ay sage femme lañu ay infirmier d'état lañu état bi recruté wul ils sont dem nekk communautaire. Mhm. ñooñu nga xam ne am nañ bac jàngaat seen spécialisation am nañ seen spécialisation ba pare jàngaat nekk ay médecin wala ñu jàngaat nekk ay infirmier wala ay sage femme dem nekkaat ay communautaire. Mhm. ci ci ci ci surtout mën naa la ci cité ñu bare bare mhm. bare bare. tey jii ñooñu dañuy toog bu weer dee ñu séddoo. Mm-hmm. est ce que loolu jaar na ci réew mu ne dafa bëgg dafa bëgg dafa bëgg a émerger ça pose problème. Mm-hmm. Euh, fan la yéex yéexital bi nekk. yéexital bi ministère de la santé la nekk. ndax arrêté boobu clé de répartition moom moo ko bind. Mm-hmm. le 11 janvier 2019 dama koy wax toujours dañoo toog ak président wax ko ne lii moo nekk ci clé de répartition nii mu ne ah bon monsieur le lii changé leen xool leen xoolaat leen ko mu ne ko non dañuy def étude fii ak un an ñu corrigé ko président ne ko dama ne lii bu ngeen demee xoolaat leen ko ñu ne boobu ñu ngi ci mm-hmm. ñu ne dañuy étudier benn affaire toujours mi ngi noonu. Mm-hmm. Euh, ñu des euh, ba léegi ci wàllu woowu mais Issa dafa mel ni école de formation fu ñuy tàggatee euh, santé yi bu weesoo université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru te nga xam ne dañ fay dugg par examen moo di ENDS ak ENTSS e dafa am ay filières yoo xamante ne boobu ba léegi amu fa ba moom moo waxal sax ngeen di sàkku ñu ubbiwaat lu ni mel rawatina ci lépp dem ci wàllum formation en master certainement ci yenn spécialité loolu tamit fan ngeen ci toll boobu ba léegi. waaw parce que on a lutté et la création des nouveaux corps maanaam xeex nañ ba am euh, ñu créer ñu ay corps yu nga xam ne mooy master en soins infirmiers obstétricaux. Mhm. mais ay la yéwén foofu la yem ba léegi benn école ubbeeku ko di may wax rek ne. du master boobu rek moo am problème. mais mhm. même la formation infirmière d'état sage-femme tey jii ci ENDSS. Mhm. amatu fa benn promo je vous dis benn promo de cinq étudiants ñoo fa defoon def nañ examen ba pare ñu ngi xaar seen résultat tey jii ñoo ñëpp bu ñu admee école ba amatul élève école nag bu ñu koy wax élève moo tax école bu war a am première année deuxième année troisième année te benn élève yeewoo fa tey jii sa pose problème problème bi nag ci diggante directeur la nekk ak le ministre de la santé mhm. loolu dañ koy wax te di wax état du Sénégal le président la République na jël ay matuwaay ci loolu ndax nag tey jii euh, amul kenn kenn encore une fois ku génn ci école boobu en tant que infirmier depuis trois ans euh, amul kenn ëpp na trois ans kuy technicien supérieur te war a nekk master ku génnee ci école boobu te xeex nañ ba koor yi ñu créé ko ba pare ay la am nañ ci wet gi beneen école bu nga xam ne ENTSS muy école nationale des travailleurs sociaux spécialisés mm-hmm. ñoom wane nañ seen matuwaay maanaam lijjanti nañ seen i kayit ci ndimbalu le secrétaire général national Mballo Dia Thiam bañ déposé ko ba ñu am école doctorale mm. mais terewul tamit directeur ba mi ngi nekk di euh, layaam layaami ci euh, curricula de formation bi nan lañu ñu war a former nan yan yan euh, module ñoo war a nekk ci formation ba ak yu mel noonu ba dem jëli ay universitaire ak yu mel noonu pour ñu defaral ko module te lam defar dara baaxu ci tey jii boo demee enseignant yi ngi wat foofu di ko defaraat di defaraat module yaak yu mel noonu te buñ ko defoon au départ du ñu yegg si foofu mm. donc nit leen di woo pour ñu am xaw ma xaw ma nu koy waxee mais ñu am tuuti sens de de de patriotisme. Mm-hmm. xool nan la ñuy fexe ba defar sunu réew mi nan la ñuy fexe ba ñoŋal sunu réew mi ba njàng ñoŋ fi mais aussi ba wér-gu-yaram ñoŋ fi malheureusement amuñu lool et nag ñi ñu jiite aussi euh, je ne sais pas ils ont peur de prendre des responsabilités wala dañuy gérer des intérêts politiques wala leneen. Mm-hmm. mais tey jii ENDSS ñi ngi woote pour ñu defar seen i kayit. déposé ko ba ñu mën a am école doctorale ndax tey jii nag grâce à And Gueusseum bunt bi ubbeeku na bunt bi ubbeeku na bu njëkk lan lañ doon ndamoo man de infirmier principal de classe exceptionnelle la mais tey jii infirmier d'état <laughs> wala boog assistant infirmier d'état bu ko neexee tey jii dina jàng ba nekk professeur en soins infirmiers. Mhm. loolu nag buñ ñu ko xañ. Mhm. buñ ñu ko xañ ñi ngi def e-learning bi war naa commencer ci weer bii nii ci février bi e-learning boobu bu jeexee nga am sa master en euh, en soins infirmiers obstétricaux mais ëllëg nga war a mën a inscrire sa PhD fan lañ koy inscrire xaj nañu dem INTSS inscrire ko fa. Mhm. dem defi <laughs> une filière sociale. Mhm. mais nag ñun ak ñeneen dañoo bëgg jàng soins infirmiers am ci ay diplôme yu yu yu kawe suñu njort. Mhm. ay lijaasa yu gën a kawee ci àdduna bi. te fii dong la mën a jaar. donc ñi ngi woo encore une fois un appel au directeur qu'il se ressaisisse xool lay jàddu lay yoon mu dem defi ko ñu avancer ko euh, Issa nga foog ne euh, ci wàllum wér-gu-yaram bi amul euh, contradiction ndax dañuy naan tout le temps la santé pour tous ñoom recruter nañu recruter wuñu et de l' côté école yi nga xamante ne moom la ñu war a former médecin yi et bon su ma la déggee ci sa biir wax amatul bu weesoo benn promotion guddi yu ñu toll muy ENDSS am na filière yoo xamante ne apparemment c' est carrément exclu wala amatu fa mais tey jii ndax ndax loolu tamit amul contradiction gis nga ñoom la santé pour personne la nañ changé tuye bi wax bi slogan rek <laughs> slogan bi nañ ko changé quoi c'est un slogan vide mhm. parce que nag allemand ata lañ ko jëlee woon la santé pour tous en deux mille mhm. mais yaakaar naa ñu deux mille vingt deux tey jii euh, mi ngi nii on le constate mhm. ah école yi daan formé formé tuñu kenn génnatul tey jii da ngay dem ci àll du ma ne àll bi mais da ngay dem dans les villages les plus reculés du Sénégal da ngay dara da lay dal doo gis ku la mhm. c'est des c'est des nag li ko waral mooy un défaut d'engagement politique ak ay njiit yu ragal njiit nag bu dee da ngaa ragal joxeel lañ la dénk nga dem toog mhm. loolu mooy li nga xam ne mooy dëkk il faut savoir prendre les responsables su ko jaree su ko jot su jotee. Mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg te bu dee loolu ñor na leen la santé pour tous am na lu ñu war a def. Mm-hmm. mais nag ci loolu dañuy dañuy remercier ah dañuy remercier les écoles privées qui sont là qui pullulent un peu partout dans le Sénégal je dirais dans le Sénégal. école privée yi bëri nañ ñi ngi def liggéey ba actuellement. Mm-hmm. malgré que des na lu bëri luñ ci war a wax. tey jii bu nu daje woon ñu war caa wax dinañ ci wax lu bëree baree bari lu ñu war a def ci école privée mais mu baax mu bon ñu ngi ñuy génneel ay infirmiers d'état ñu ngi ñuy génneel ay sages-femmes ñu ngi ñuy génneel ay assistants infirmiers d'état yu nga xam ne buñ duggee ci terrain bi dinañ mën a góorgóorlu dimbale nit ñi seen seen wàllu wér-gu-yaram mm-hmm. mais aussi féliciter les universités lu mel ne université Bambey lu mel ne université Gaston Berger lu mel ne université Cheikh Anta Diop tey jii ñu ngi formé tey jii université Ziguinchor sax dugg nañ ci ñu ngi formé ay infirmiers d'état ñu ngi mais aussi ngi formé des masters mhm. en soins infirmiers loolu dañ ciy santaat bu baax a baax a baax bu ma la waxee ne tey jii ministère de la santé pour mu am des techniciens <laughs> supérieurs en anesthésie réanimation dañoo jógee bàyyi fa seen école ba nga xam ne ñoom ñoo ko moom di fay niñ ñi weeru wu dee yóbbu leen université Gaston Berger pour mu former leen. Mhm. yóbbu nañ fa quarante infirmiers d'état yu war a commencer formation. Mhm. xam nga loolu dafa ñaaw sax ci réew mu ne saa tu es un état respecté et respectueux. Mhm. Euh, de privé yi wax nga ko mu baax mu bon mais ñu ci bëri nag dañ leen di duut baaraamu tuuma à savoir euh, nu ñuy polluer nii moom mooy que ne la qualité aussi ça laisse à à désirer loolu tamit euh, beneen point la donte xam naa ni doo ci bëgg a sori nag. nee bañu ma cee de <laughs> xam nga moom euh, comme li ngay wax rek. Euh. ñun waa ànd gësam moom. Euh. na dox rek te jaar yoon. ku jaar yoon ànd nañ ceeg yow ku jaarul yoon ànduñoo ak yow. Mhm. loolu la ñuy wax sax suñuy militant. bu ngeen mhm. bëggee daal lu ngeen nekk ñu nekk ca nekk leen ci dëgg. Mhm. njëkk xëy mujjee wàcc bañ a laal def lañ la def loo na mu waree. ku ko ci def ñu nekk ak yow ku ko ci deful nag ah. loo ci góobe gar mhm. mooy école yi la tax rek du ma ca xuuse bu baax a baax a baax mooy une de temps la ñu am mhm. tey sunu plateforme bii dafa xaw a <laughs> waaw moo tax daal <laughs> uh-huh. euh, su ma sañoon ñu kii ko noonu ba ba beneen émission ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw waxtaanaat mhm. je suis prêt ah heure boo bëggee ñu ñëw ñu ñëw waxtaanaat ci quoi mais daal xam naa ne lañ ca war a wax bari na la ca jaarul yoon bari na ci ubbi gi ubbi école bi ñay jàngale ak ñay jàng <coughs> parce que formation noonu la ñiy jàngale ak ñiy jàng mhm. ñiy jàng dañ leen a war a segg bu baax a baax a baax kan moo mérito inscrire première année infirmier d'état wala sage-femme wala assistant infirmier dañ ko war a xoolaat du ko am dem am bac rek ñëw mën a jàng c'est vrai que am bac am nga niveau bac mais xamuñu foo jëlee bac ak xamuñu nu bac demee mhm. kon ay examen d'entrée sax dafa war a am ci école privée yooyu ak leneen ak leneen ak mhm. leneen dina tax ñu am la crème te ñun loolu dañu soxla ñay jàngale ñan ñooy jàngale kenn xamul mhm. kenn xamul ñu mhm. warul jàngale kese ñoo wëcc parce que école yi bari nañ trop ñu warul jàngale ñooy jàngale ñu warta ubbi école ñooy ubbi école comme ni clinique yi nekk du ministère de la santé il faut le dire parce que ñoom ñoo yore police loolu ñoo war dem xool école yi ku ci jaarul yoon ñu tëj leen am nañ division formation nañ def liggéey boobu Euh, Issa ci weer yu ñu génn aussi di nga xamante ne ñoom ñooy nekk ay travailleurs collectivités territoriales euh, te ñu indi woon leen certainement ngir ñu mën a appuyer médecins yi jëm ci xeex euh, ci mbas mi di Covid 19 amoon nañ fi ay jafe-jafe ñu ngi doon wax ay arriérés de salaire wala tamit ay primes defoon nañ fi ay mouvement d'humeur def nañ fi port de brassard rouge am na sax xam naa ñu jot touché tuuti ci seen xaalis tey jii boo ñu doon defal benn benn état des lieux parce que dossier bi peut-être day am ay rebondissement yoo xamante ne du lépp la ñuy mën a fësal tey jii boo ñu doon mën a defaral rek benn petite évaluation wala état des lieux bu remboursement bu soxal arriéré des salaires primes ci travailleurs collectivités territoriales yi fan ngeen ci toll ndax bokk na tamit ci seen point de revendication yi. ñu ci toll daal mooy gàcce lañ ci am ñun. bu ñuy bu ñuy aborder sujet boobu dañuy am gàcce. pourquoi parce que du ma ne les municipaux sax. Mhm. Euh, ñi may njëkk a wax mooy les les les les agents santé communautaire ñooñu may wax léegi bénévole yooyu nekk suñu biir hôpitaux yi. Mhm. pratiquement liggéey ba yépp ñoo ko doon def. te dañoo nekk position bu fragile bu nga xam ne sa chef de service bu ne la fanaanal fii doo fa jóge ba bët set mën ngaa xëy sax continuer waat liggéey ndax lan bëgg sa liggéey mais aussi ragal ku la dàq ndax lu bone bone bu dee 1000 francs sax yaa ngi ko fay jëlee muy ab sac. Mhm. ñooñee te ji fonds yooyu ñu génne woon di 6 mois rek te Covid bi yaakaar naa 3 mars. wala 2 mars deux mille dix neuf deux mille vingt. deux lañ njëkk am suñ premier cas. xam naa ne gannaaw suba dinañ fete <laughs> deux ans de Covid yi. Mm. Sénégal deux ans de Covid ñu fay six mois kese. te six mois ñan ñoo ko fayeeku étatique yi ñoom lañ ko fay ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey ñu ngi ci fonction publique fay nañ leen six mois weeru nekk cinquante mille ñeneen ñi mooy les municipaux ñii trois mois lañ leen fay ñii am nañ six mois ñii amuñu dara. wax nañ ko fañ ko war a waxee tout dernièrement lan lañ ñu mujjee wax euh, budget ba moo jeex bàyyi leen ba janvier ba ñu ubbiwaat budget deux mille vingt deux nga xam ne ca début deux mille vingt lañ ko fayoon deux mille vingt fayuñ leen deux mille vingt ñu naan budget ba dafa jeex nañu xaar deux mille vingt deux deux mille vingt deux noonu la nar a demee. Uh-huh. mais daal une encore une fois. rien ne sera plus comme avant. lañ doon uh-huh. baale yëpp baaleetuñu ko. ndax uh-huh. nag ñi ñu jàkkaar lool xamuñu masla xamuñu négocier xamuñu nit ñu am foi ci ñoom. lan lañ xam ñu génnee sunu hache de guerre yi nga xam ne dencoon nañu ko ñu génne ko jàmmaarloo ak ñoom nag mhm. te nag encore une fois on leur met devant leur responsabilité na mhm. population bu baax a baax xam loolu ëllëg lu ñu gis ku feebar bëgg a faju wala nga am sa doom mu bëgg a ñàkku mënta ñàkku nañu xam ne ñun amuñ ci benn responsabilité te bañ loolu moo tax nag ñu nekk doon maslaha doon négocier guddeeg bëccëg suba ngoon ndax bañ a yegg ci grève mhm. état bi nag yóbbu nañu ca nañ ca dem ba Mhm. Euh, mbokk auditeurs yi yéen a ngi teewlu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag tey a mbégte ak bànneex di daal ki nga xamante ne moom moo di Issa Gueye Issa Gueye nekk secrétaire national chargé de l'administration du SUTSAS waaye tamit nekk secrétaire administratif adjoint bu And Gueusseum Issa dañuy jógee ci seen wàllu revendication yi ñëw ci yenn saa yenn jafe-jafe yi nga xamante ne agent de santé yi dañ koy farataal di jànkonteel surtout ci yenn gox-gox yi mu mel mel ni ci sud du pays bi ba yenn saay mu jural leen ay mouvement du d'humeur lu ci mel ni ay genre agression tey jii am na lu fi jotoon am semaine bu ñu génn ba ngeen takkoon port de brassard rouge mais mu mel ni buñ ko waxee rek a un moment donné bu pënd bi bu coow bi bëree rek après da ngeen di def pouse donte da ngeen di anonté ay plainte contre x mais mu mel ni après tamit dañuy delluwaat case de départ ba <coughs> waaw euh, comme noonu nga ko waxee <laughs> sunu problème jafe-jafe bi nga xam ne dañu koy gën di am par rapport ak les postes les postes excentrés mooy euh, problème de sécurité uh-huh. wax nañ ko fu nekk jooy ko fu nekk mais euh, sunu autorités yi bëgguñoo jël seen responsabilité encore une fois ci loolu ASP yaa ngi fi lan moo tere ñu affecté ñu ko au niveau des postes de santé. Mhm. ñu gérer ñu tuuti suñu sécurité. Mhm. Euh, ñeneen na ngi fi lu mel ne les collectivité territoriales. lan moo tere ñu jël ay nit bàyyi leen foofu ñu gérer ñu suñu sécurité. Mhm. mais duñu ko def dañuy bàyyi noonu jigéen bu nga xam ne. mosoo génn xaj na Dakar ñu yóbbu la fu sori six cent kilomètres de ta famille nga nekk fa yow dong xaaju guddi nit ñëw fëgg la ne la dafa yor malaat te fekk agresseur la. Mhm. li xew barki démb Sédhiou ci poste jan Janna Malari. Mhm. ak sunu jigéen boobu di. Mhm. Clarisse Silva. lan la def. feebar ba ñu opéré ko bëtam mu tëdd ay nit jógee fële dem meeting ba seen xol sedd dañoo ne suñu bopp day metti sage femme lan la yoonam ci bopp buy metti ñu fekk foofu génnal sam bopp day metti ñu ne ko yaa ñuy faj mu ne leen dem ci infirmier bi ma nga ñu ne suñu yoon nekku ci mais yow lañ bëgg nga faj ñu force ko dajji bundu fekk ko ci biir un gaillard téye ko bloqué ko ci bundu bi ñeneen ñi di weqe ko dóore ko mbéj tu vois ce que ça ba tey ji mi ngi hospitalisé tëdd ba léegi mënta dem liggéeyi hmm. nee nañ nag ci alxames bi dinañ def procès bi mais nag li xaw a dala suma xel tuuti mooy ñooñee bi ñu portee plainte <coughs> wut avocat ñooñu jàpp nañ leen te fukki nit lañu je vous le dis. Mm-hmm. neuf personnes yi jàpp nañ xaw ma ana kenn ka <laughs> ci lu mu nekk tam nekkuma ci nekkuma sëy ji actuellement am xam kenn fu mu nekk. Mm-hmm. mais neuf personnes yi jàpp nañ leen arrêté nañ leen en attendant un jugement mais dañuy wax ne dafa war a servir en exemple. ndax nag mës na faa am kankurang door fa benn sage-femme gor ko jaaseeg lu nekk bañ demee ñu maslaa woo ñu waxtaan ñu jéggal ko ñu defaat lii bii nag dafa war a nekk exemple. Mm-hmm. ci lan le juge on a un appel surtout au juge de Sédhiou. na jël euh, des sanction yu nga xam ne exemplaire lay nekk pour keneen dootul am fitu laal personnel de santé mhm. mais nag di woo état bi aussi ci sunu dëkkuwaay yooyu sunu liggéeyukaay yooyu mhm. nañu fa defal le minimum de sécurité mooy lan nañu fa defal courant nañu fa defal ndox mais aussi nañu am ay logement waxoon naa ko fi da gis poste de santé moo nga xam dañ koo tabax ci ndum noonu rek benn néeg rek ne demal liggéey foofu dinaa ko wax le secrétaire général des jeunes du SUTSAS poste de santé ba mu nekkoon ci biir médecine bi lay fanaan maanaam ci biir salle de consultation la doon fanaan mhm. su xëyee faj nit ñi bu ngoonee mu rapidement aménage fu mu mën a tëdd nelaw ba suba tu vois ce que ça fait ñeneen ñi amuñu logement dañuy dem ci biir dëkk bi guddi jot ñu war a déplacé wu ñëw donc on lance un appel aussi à l'état que loolu nañu ci taxawal vraiment wutal ñu ay agent de sécurité yu nga xam ne dañ mën a nekk foofu di aar su ñooñ mais aussi ku ñu laal mu jóg daal ci kawam. Mhm. qu'est-ce qu'on bu loolu amee manifester wane sunu naqar nit moom surtout sénégalais bu ñëwee wax naqaram rek pratiquement mën naa giifaat mais nag tey jii yemuñu foofu dañuy wax état sunu naqar boobu nañu ko saafaraal mu jeex benn yoon ba nga xam ne kenn dootul am fitu laal ñu ci sunu barabu liggéeyukaay. ndax mhm. population encore fois ñoom ñoo ñu fa teg. Mhm. mënumaa comprendre nit nga teg ko fi mu ñëw di la sàmmal sa wér yaram te loo yéen jëkkati lu bon yéene ko ko mm-hmm. ça pose problème mm-hmm. ñun encore une fois sunu njëriñ foofu ci institut sanitaire yi mooy faj population bi te xam nañu bu baax a baax ne loolu la ñu jàng loolu mooy sunu njëriñ loolu moo ñu yëkkati looloo tax ñu toog fa. Mm-hmm. ku ñu fa ñàkkee kersa wala ñu jànni la wala ñu def la lu ñu la warul def xamal ne du sunu bëgg-bëgg du sunu yéene aussi xaj na nit nit lay doon léeg-léeg nga toll fu nga xam ne di nga def yëf yi euh, doomu aadama mais nañ jàpp ne mosuñu koo bëgg mosuñu bëgg a jànni kenn. Mm-hmm. du sunu yéene du sunu doxin. Mm-hmm. Euh, semaine bi ñu génn ah, hôpital jafe-jafe yu opposé directeur bi ak euh, ñenn ñu fay liggéey ci ay information sax euh, xam leen ngeen woon ne bu fekkente ne autorité yi euh, réagiruñu dinañ dem vers de lendemains noirs moo xam ci sax grève wala ay mouvement d'humeur tey jii ndax situation bi rétabliru na ndax le calme est revenu ci foofu ci hôpital bu Ourossogui <coughs> waaw petit à petit on dit alhamdulilah parce que nag euh, jar nañu laat ko. Ah, problème boobu directeur bi moo xëy te defagu fa sax trois trimestres maanaam defagu fa neuf mois xëy rek yokkal boppam jëlee six cent mille yokkal boppam ba un million ne lan pour lan parce que euh, en mooy indemnité de direction émoluments yi nga xam ne directeur war na koo am lu mu ca teg ne non parce que am na ay chirurgiens yi nga xam ne ñu ngi fii samay naataango ñu waruñu maa ëpp lu ñuy fayeeku est-ce que loolu waxi je dirais pas waxi nit mais. est-ce que waxu responsable waxu responsable la. ñii waruñ maa ëpp salaire te la ñuy liggéey liggéeyoo ko ñu ne ko d'accord comme yaa ko yokkal sa bopp ñu ci dara léegi ñun tamit ñi nga xam ne ñoo koy liggéey. mbaam tuuti na gàtt na lool waaye ci jur gi la bokk ñun ñi nga xam ne ñoo koy liggéey nag fexeel nga yokkal ñu dara mu ne ay la yewen loolu du fi amee tey du fi amee ëllëg. ka nga xam ne ci ñun la bokk di jàmbaaru fàkk tëdd di Mamadou Lamine Amadou Lamine Sanu jiite SUTSAS Ourossogui jiite ko ci région bi. Mhm. ne loolu du fi amee mu ne ko yow waroo wax da ngaa war a far ci man. Mhm. mu ne lu may far ci yow malgré bu mu nekkee sa CECI chef service des soins infirmiers. Mhm. maanaam lépp luy faj faju moo ko jiite foofu. mais warul tax mu war a ànd ak yow ndax laa te maa jiite syndicat bi nag militant yi laay àndal. ñoom ñoo am lu leen naqari mu ne ko boo àndut ak man ma ki taxe la d'insubordination loolu doyul mu jox ko demande explication ndax loolu kese. loolu doyul mu xëy porte ko plainte ñuy wax ci suba sa. mu xëy wàcce ko ne ko poste bii nga ki yoon directeur la ko fal me bu dul man mais directeur la ko faloon kon dama lay wàcce nga wuti wuti keneen teg ko fi. Mhm. ñu ne ko nag arrête lii moom dootu fi du fi amee. waxuñu la nga ko wàcce ndax loolu c'est un petit problème mais indemnité yi noonu nga ko fayee sa bopp di ko fay travailleurs yi heureusement démb le préfet ñu ngi koy gërëm ci loolu aussi def na fi yu fi mat te foofu lañ leen di xaar aussi woo na leen waxtaan ba plante bi retiré na ko. plainte bi nga xam ne porte woon na ko ci sànnu ci waxi kasaw kasaw yooyu retiré na ko benn ñaar waxi indemnité yooyu nee na ko le 22 na nga leen woo ngeen waxtaan ba nga xam ne di ngeen leen proposé ay indemnité ñu ne comme loolu la nag monsieur le préfet ñun dooñu gën ko rek li ñu def mooy sunuy ngànnaay nañ ko wéer encore une fois ndax xeex bi du pour dara li may pour am li ñu bëgg mhm. ñun xeexuñu pour dara xeexuñu pour nit xeexuñu pour keneen mais xeex ba am li ñu bëgg kase la te mhm. ko amee dootuñ xeex mhm. donc ñu ne ko ñu ngi lay wéeral ngànnaay yi actuellement boo demee Ourossogui gi ca hôpital ba ca région ba sax laay wax wéer nañ ngànnaay ya mais nag comme région bi ñoo porté woon xeex bi ñu profité ci wax leen lii ne leen am nañ problème sécurité mais aussi suñu CMU bi fayuñ ñu ko muy Ranérou ak euh, ak Kanel su juumul fayuñ leen seen CMU bi nañu fexe ñu fay ko ba jël na ci ay matuwaay. Mhm. mais wéer ngànnaay yi nag di dem jàkkaarloog sa noonu wéer ngànnaay yépp nag day tax mu. faagaagal la ne mhm. ko nag dinañ wéer suñuy ngànnaay mhm. dootuñ grève waaye li nga xam ne nag mooy information yi nga xam ne ñun ñoo koy produire dinañ ko denc ba keroog ñuy gis lu nu leer mhm. suñu xaalis séemi ngeen jox ñu ko leneen leneen a une fois pour le bien du système euh, mais Issa yéen ay syndicaliste ngeen mais pour régler seen seen situation dafay xaw a compliqué je m'explique parce que boo jëlee ci syndicat jàngalekat yi ku nekk certainement ak revendication ak particularité wala ak ses spécificités c'est aussi valable tamit pour yéen ñi nga xamante ne yéen ay nekk ci syndicat bu soxla lépp jëm ci wàllu wér yaram apparemment da ngeen di def tout da ngeen di dem toujours en rang dispersé je comprends que vous n'avez pas les mêmes points de revendication mais aussi tamit ndax foofu pour satisfaire seen euh, doléance yi dina yomb ci ñu ñu jiite aussi waaw euh, di la wax rek rang dispersé euh, Euh, c'est selon hein euh. c'est relatif parce que man je pense pas que ñu nekk en rang dispersé d'accord parce que tey jii euh, dans le système sanitaire boo demee ci dans les soixante dix neuf districts du Sénégal mhm. di nga fa fekk SUTSAS mu majoritaire mhm. kon boobu yaakaar naa li ëpp ci système bi ñu ngi ci SUTSAS nga dem dans le travailleurs municipaux ñu ngi sur le terrain mhm. ñooñu tey jii ñi ngi ànd ak SUTSAS ci ànd gësam uh-huh. nga dem CNTS am na fa lu bari nga dem sat santé démocratique avec <laughs> la camarade Ndeye Diakhaté am na fa lu bari nga dem sat santé seel euh, mi ngi ci ànd gësam uh-huh. tey jii juróomi sendika yi gën a rëy ci réew mi ñu ngi and gësam rax ci dolli nag am na SATSUS muy syndicat des techniciens supérieurs de la santé mingi ngi ak ànd gësam bokk ak ñoom gis-gis malgré que si ñëwul pour dugg ànd gësam mais lu ñuy def da ci ànd ak ñun te yaakaar naa fii ak fan yu néew dinañ signé la leen di dugal ci biir ànd gësam ndax xeex bi d'accord nañ ci bii nga xam ne moom la ñu sumb d'accord nañ ci te ànd nañ ci mhm. kon euh, en rang dispersé yaakaaruma ne am na fi leneen li nag xaj na euh, ñoo bokki problème ñun ñëpp mhm. ñun ñëpp ci système mais il faut reconnaître que am nañ ay syndicat de corporation lu mel ne SAMES syndicat de corporation la xaj na ñoom gis nañ ne mën nañoo demal seen bopp d'une manière euh, bof je dis pas demal seen bopp indépendamment mais am na lu nga xam ne ñoom ñoo yaakaar ne seen problème bopp la ñoom ñoo ko régler seen bopp malgré que am na médecins yu nekk suñu biir te ñu ngi ànd ak ñoom di xeex lu mel ne yeneen syndicat yi euh, du ma wax kenn balaa may <laughs> ñu ne yaa ma fi tuddoon ak yu mel noonu mais quand même li ma wax <coughs> te ñu war ko retenir mooy nous gagnerons à être une seule personnes mais nag lëngoo neex na lool waaye bu mënul nekk ña fa nekk kas néew <laughs> te xam ne nag ñoo am plateforme revendicative ñooy xeex lu fi am coow ñoom la ñoo ñooñee bu ñu andee di xeex dinañ gañe te ñi ngi gañe ba léegi mhm, mhm. ñi ngi gañe exemple bi ma la jox léegi rek mooy itinérance bi ñu yóbbu trente mille te ne deux mille vingt trois dañ ko yóbbu cinquante mille mhm. affaire technicien supérieur yaa ngi nii lu mel ne euh, fonction publique locale a ngi nii ñun ñoo ko gagné lu mel ne assistant infirmier yaa ngi ñu war leen defal un an de de formation mais daal je lance un appel à tous ces syndicats que nañu ñëw rejoindre And Gueusseum encore mhm. une fois mhm. te loolu mooy intérêt bi loolu mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moo ñuy dimbale bëriwul sax xaj ne ñaari syndicat wala ñetti syndicat ñoo fi des ci lima xam mhm. donc ñooñu te fee juróom-benn syndicat ña nga fa tey jii léegi bi may dugg rek maa ngi am ku may waxtaanal xaj na du ma tudd turam fii. Mm. par décence parce que waxtaanagut ak njabootam. Mm. mais muy juróom-ñaari syndicat bu nga xam ne suba suba suba. day dina affilié wu ci ànd gësam. Mm-hmm. te du syndicat bu ndaw. Mm-hmm. kon je dis fu nga xam ne fukki syndicat ñoo fa war a nekk wala juróom-ñeenti syndicat bu juróom-ñaar nekkee ci benn mbooloo kon ñëpp ña nga fa. Mm-hmm. en plus que jéem mënoo. nga bàyyi wàññiwul dara. ñeneen ñi jéem nañu def seen intersyndical doxul ñu ne dañuy jéem a defaat intersyndical doxul mais nañu rejoindre ñu ànd mhm. liggéey moo gën quoi dañu teer seen yenn yi defu leen dara kenn waxu leen dara kenn siisu encore une fois biir ànd gasam. Mhm. li may wax. et que j'en profite et par rapport à cela SUTSAS mooy ndayi syndicat yépp yi nekk ci Sénégal bépp buy syndicat moo xam nga bokkoon fi wala bokkoo fi woon am na ñu nga xam ne bokkuñ fi woon c'est vrai mais bépp syndicat bu nga xam ne moo fi nekk ci euh, SUTSAS la bàyyee ko directement wala indirectement parce que ba muy metti kenn ñemewul syndiqué en 1976 la ñu toog waxtaanee ko ci njaareem barki démb ñu ngi fete suñuy 40 ans de. du SUTSAS ca njaareem waxtaanee ko def ko dans la clandestinité ba 1982 le récépissé ba soog a génn muy 40 ans ci ren. Mhm. et di wax ne bi yëpp sunu 40 ans lay nekk sunu feetu anniversaire lay nekk xanaa di ne ma joyeux anniversaire. Mhm. donc di wax ñëpp rek nañu ñëw ñibbisi ci seen kër baay. Mhm. on a ouvert nos bras les accueillera ñi ngi xeex nag buñ dañ leen xeexal buñ ñëwul dañ leen xeexal te nañ daan def di gagné dañ ko kon ne def di gagné pour ñoom. Mhm. Euh, Issa Gueye duñu <coughs> duñu tëj émission bi te waxuñu li nga xamante ne moom moo soxal seen premier plan d'action ngeen fas yéene ko wala ngeen ko le quinze février bu ñu génn ngeen fas yéene ko élargir ba le 17 mars 2022 ñu bëggoon xam rek de manière un peu plus détaillée yan activité ngeen ci farat ngeen fas yéene ci def. di ngeen def ay sitting ah, lan ngeen ci fas yéene def. waaw xam naa boo duggee foofu boo deful ndànk après da ngay daal di nar mm. mais balaa ngay tëj rek di nga may ma dugg benn problème bu nga xam ne lu lu lu lu am solo la allez-y te mu tenir ñu à cœur muy li xew Touba actuellement li xew Touba nag mooy le la nouvelle médecin chef de district mm-hmm. euh, Ndeye Maguette Diop docteur dafa xëy rek génne affectation chamboulé ñëpp moom ci boppam moo génne note d' affectation. Mhm. est-ce que loolu mën naa am dans un pays civilisé un médecin chef buy génne affectation ñu yuuxu mu daw ci ci ci kii bi. Euh, ci sous préfet bi sous préfet bindalaat ko ay note d' affectation reprendre note bi malheureusement date ya wuute. Mhm. ñëpp xam ne la ñu yuuxu moo tax mu daw. Mhm. ci sous préfet bi mu defal ko. te kenn demandé wul à que ñu affecté la parce que nag gestion démocratique ak ministère de commission de redéploiement national des personnels de santé du personnel de santé ñu ngi fa tey ak suba à Thiès di liggéey ci loolu mm-hmm. ay la yowén le ministère de la santé di ko def région médicale du ko def yow nga ne district doo ko def xëy rek affecté ñëpp nu mu la neexee ñu ne loolu du fi amee ndax nag nooteel boobu dafa yàgg au district de Touba waa Touba nag ne loolu du fi amee te nag ñun nag association des infirmiers lañ amoon dañ koy changer def ko mm-hmm. euh, affilié au niveau du SUTSAS ñoom ñëpp ñu jënd carte de membre ba ëpp nañ deux cent personnes yu jënd seen njiit ka porté xeex boobu ne ko fi amee ba ñu reporté rapporté euh, note affectation yu ci bëri finalement dañ ne léegi nañ waxtaan ku bëgg a dem nga dem ku bëggul dem ñu delloo la fa nga nekkoon ñu ne d'accord loolu doyul le médecin chef xëy xaw pour quelle quelle magie ñu xëy gis le secrétaire général du ministère de la santé génne note d'affectation kooku de El Hadj ñu affecté ko région médicale de Fatick mm-hmm. parce que lan mi ngi kat mi ngi ànd ak ay moroom ñu créé seen affaiblir leen pour xooqatal leen mhm. ñooñu ne ko du fi amee élage ngeen dàq mais ñun ñëpp ay élage lañu mënulu leen ko dara ñu toog on a rencontré ñi ñu war a rencontré les autorités yu mel noonu ba le secrétaire général du ministère de la santé revenir ci note boobu waat ko ci médecin chef de district mais ko ëpp li mbokk mënoo koo jëw note boobu bi mu ko defee ñun la intéresse da koo jox élage Thiam mhm. malheureusement le médecin chef di acharné wu heure bu mu jotee note de note d'affectation rek day bind cessation rapidement. Mhm. am na sax bu nga xam ne ko jot naa sa note d'affectation suba na nga ñëw a euh, cessé loolu la bind ci note de cessation bi. te mu jot la note qui rapporte la première note d'affectation te bindul prise de service bi daal di koy denc ay tiroiram ay la yoween ñu xëy xëy gis le médecin le ministre de la santé uh-huh. waat note de raffectation à Touba boobu waat ko région médicale de Fatick ma ci man réew lañ nekk ba sa secteur général wax ne lii laay def nga xëy rek dagg ko dindi sànni fële pour quelle raison xamuñu yan raison moo ca nekk réewum dilatoire réewum dilatoire ak réewum sax kenn xamul dilatoire mi ngi noonu wax nga ko <laughs> Miami comme on di mais nag ñun fële ca Touba tey ci téeméeri ñaar téeméeri El Hadj Thiat ña nga fa ak fanweer. Mhm. bu ñu xeexoon bay bëgg a dee te ñu yóbbu El Hadj du tere syndicat ba dëgër fa. Mhm. la ñu bëgg ñu am ko mais nag yóbbu El Hadj Thiat du fa am tey du fi am ëllëg. Mhm. ñoom ña ngay xeex bu ñu tëlee danañ jox la section départementale te section départementale de Mbacké dugg na ci bu ñu tëlee dinañ jox région de Diourbel bu ñu tëlee nag nañu laaj région Matam Dembo Ndiaye yaakaar naa lañ defoon lépp dindi nañ ko bu ñu tëlee ñun dinañ jóg te bu ñu jógee du baax ci ñoom du baax ci population kon population bi ñu wax bi ñu déposé préavis de grève bi noonu ñu ko tuddee noonu. Mhm. Euh, dañ boole plan d'action. Mhm. nee naa amatuñ lu ñuy xaar amatuñ période de grâce bu ñuy may état parce que may nañ ko période de grâce du avril. au nun koy waxee seize février deful dara. Mhm. léegi nag ñun dañuy def dara comme moom bëggul def dara. li ñuy njëkk a def mooy tey jii dañoo def conférence de presse. Mhm. fële ci siège yu FGTS. Mhm. Euh, Médina buñ ca jógee. dañuy def ay conférence de presse régionale. de mobilisation et de vulgarisation de la plateforme revendicative plateforme bi ak bi passé dañ koy boole tënk ko benn won ko waa dëkk bi yëpp ne leen lii la ñu def. lii la ñuy bañ lii la ñu bëgg. loolee du 21. au vingt six février lañ bëgg région bu nekk nga organiser sa point de conférence de presse pour yëgal waa dëkk ba mais aussi yëgal say militants yi des li xew ak liñ bëgg a def. Mm. loolu dañ ciy profité di wax ne semaine boobu euh, SATSUS muy syndicat des techniciens supérieurs de la santé de l' action sociale dañ def seen conférence de presse ca Kaolack invité ñu ñun ñu ñëw ànd ak ñoom won ne ñoom kat ñi ngi ci biir ànd gësëm tey ñi ngi ci biir ànd gësëm ëllëg. ba mu neex. d'accord beneen bi mooy des sit-in régional régionaux. avec port de brassard rouge du lundi 21 au samedi 26 maanaam foofu région bu nekk dañ ne na nga jàpp benn bis bu nga xam ne ca ngay def sa sit au niveau de la région. Mhm. marche départementale département bu nekk les 46 du Sénégal nañu def marche. Mhm. moo xam ñu takk ay brassard wala nit ñu woon xoy yi ñu nekkoon Fatick la ñu président de la République tuddee woon ay xoy. Mhm. mais sol lu xonk mbaxana meeg t-shirt ak yére bi dox ci mbedd mi wane li ñi xam ko. du ci loolu nag dañuy national. buntu ministère de la santé na ko dégg ñu koy wax. danañ dem toog foofu ñun ñëpp def fa sitin wonewaat suñuy naqar buñ ca jógul nag ñu def une marche nationale mhm. bu nga xam ne toutes les régions seront représentées à a ginnaaw loolu la ñu def évaluation bu ñu defee évaluation bi nag wane ne lañ doon xeex dara avancé wu ministère de la santé ak le gouvernement du Sénégal la mu war a def defu ko ñu jóg dem ci nag grève te nag yàlla bu ñu yegg foofu mhm. xam nañ ñamoon nañ daaw mhm. bu ñu ñamaatee nañ xam ne euh, comme on dit Dakaaru saf ñaari yoon mais bi Dakaaru fële la Saalum la day saf safaat <laughs> euh, ñoo ko déggandoo mbokk auditeurs yi def nañ seen plan d'action boo xamante ne apparemment dina laal lu tolloog un mois Issa waxtaan wi am na solo mais mu mel nii nag euh, lu ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca jeex na xaat jeex na <laughs> en fait di di la di la remercier ah di la di la remercier bu baax a baax a baax. mais aussi di def un appel. à tous les militants. parce que nag di wax ne xeex yombul xeex yombul ah. il faut savoir donner des coups mais il faut ça en savoir en recevoir recevoir de retour. Mm-hmm. Ah? ni ngay joxee noonu lañ lay joxe tout à ah? moo tax dana yàgg dana metti ndax ñi ñu jàkkaar lool bëgguñu daray jàmm santé pour tous boobu santé pour personne la léegi bëgguñu santé nit ñi am jàmm. comme mm-hmm. bëgguñu ñu am jàmm nag. Mm-hmm. nañu ko waajal bu baax a baax a baax te xam ne. Euh, tàmbali nañ première plan d'action. buñ ci jógee dinañ dem deuxième bi yoon demoon nañ ba dix-septième plan d'action mais bii. yaakaaruma nañ fa yegg. ndax nag am na lu bëri luñ doon sóor. Mm-hmm. dootuñu ko sóor. là il faut que ça soit très clair. mais mm-hmm. soro nañ lu bëri ba nga xam ne dix-septième plan d' action lañ doon la ñuy soog génne arme lourde mm-hmm. mais bii deuxième wala troisième plan d' action dañ génne arme dévastatrice laay wax. <laughs> te su boobaa nag buñ ne waxuñ leen ko woon ñun def nañ la ñu war Je demande à tout nos militants de se mobiliser, d'être de se construire en un seul homme maanaam nañu taxaw dëgëral seen bopp jëmal seen bopp nekk kenn nit parce que bu ñu booloo nekk benn saay rek kenn uh-huh. leen mën a damm uh-huh. mais bu ñu tasaaroo rek ñu mën leen xoqatal uh-huh. et c'est très bien ñu déggal suñuy waajur loolu lañ leen di sant mais sama papa nee na ma bu ma grève ak sama a nee na ma sama papa nii sama papa yooyu yëpp dëgg la waaye liy compte mooy nañu gëm suñu bopp toog xeex ta xam ne bu dul santé di feneen te duñu yegg foofu mhm. incha allah ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jaajëfal parce que nag amuñu je dis pas seen fay parce que lu ñu jóg suba ngoon guddeeg bëccëg malgré que yéen ñu teg ne ñu dem leen foofu xeexal ñu ñun ñooy ñu nangu ko nekk seeni jaam ci lool mais aussi fu ñu leen woo ci xeex yéen a ngi ciy fu ñu leen woo aussi ci leneen yéen a ngi ñu ciy wuyu kon ñu ngi leen di jaajëfal les militants mhm. di leen wax ne nañ gën a jaajuwaat te xam ne li des bari na mhm. tant que y a vie toujours des acquis pour ànd gësam mhm. tant que aussi ñun ñi ngi fi lu ñu xeex ba am ko rek bu subaa dinañ xaalaajaat leen mhm. na seen xel dal ci loolu mhm. merci encore une fois à réew mi mais aussi à tous les auditeurs ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm di leen wax ne ça ça a été un un plaisir vraiment de partager avec avec yow Mm-hmm. malgré que les questions étaient très chaudes <laughs> mais j'espère que <laughs> sant nañ bu baax merci beaucoup euh, euh, plaisir partagé Issa Gueye fàttali ne moom moo nekkoon tey suñu gan ci suñu émission bi di SOS santé Issa Gueye nekk secrétaire euh, national chargé de l'administration du SUTSAS waaye tamit nekk secrétaire administratif adjoint bu And Gueusseum fàttali ne yéen a ngi doon seen émission bi di SOS santé et Fatou Baba Fall moo nekkoon Bachir Cissé Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité